bi élection yi egsee dañoo wàcc sun bas ab laxaat jóge Tuubaa tim Dakar ñu wàcc base am ñu dox li ñu war a dox lépp seeti nit ñi bi nga xamee ñi ngi lance ñi ngi war def benn meeting ñu xam comme ñun dañoo ànd ak kenn muy àjjana ñu war a leader yi nekk Tuubaa muy maam Xari Mbàkke Abdou Lahat Ka Abdou Bali bi ma demalee sama bopp yónnee ma man maa demal sama bopp tam toog ak ñoom waxtaan ak ñoom leen na ceen loolu dafa dugg si Tuubaa te moo yor àjjana mi ngi ciy liggéey wane li ñuy liggéey lépp ñu rafetlu ko kontaan ca waaye gisuma tamit benn jéego ñu dox ko ca gis ñu dox ca benn jéego boo jaral na leen ndax Macky Sall comme moom day dañ ko bëgg mu gañe Tuubaa képp ku yor sa sa parti dañ bokk lépp sotti ci Macky Sall war ñoo mën a boole suñu doole ba Macky Sall gañu ngi doo ko xaajale ko waaye man rafetluwuma liñ def li tax mooy dañoo dañ ñoo xaw a négliger te négliger bi mooy dañoo Macky Sall dafa indi ay moyens tuubaa comme yow Macky Sall ngay jàppale moyens yooyu mu indi Touba ñëpp ci la war a bokk waaye ñu gis ñu suñu bopp waaw loolu moo tax gis ñu suñu bopp te joxuñu ci suñ suñ cër tamit cër bi ñu ci war a am joxuñu ñu ko. waaye ñu dañoo beddi moom xam naa lu ñoo beddi moom ndax gis ñu ñu dox benn jéego pour ñun da so da sonnoon ci dem ci ñoom seeta leen dem fa topp loolu ñu leen suñu leetar da gis ñu tam jox ci benn jéego boo xam ne daal war na ñun lañ jugoon di ko defe ca ñoom intéressé na leen maa ñu duñ ñaxtu sax ndax xam nga lu tax duñ ñaxtu nit ki ànd dafa mat ndax Thierno dafa mat mat koo xam ne bu sañoon sax du nekk di di wër waaye boo ko sañoon dem te ñoom pour bu ñu ànd liggéey pour Macky Sall ke ne woon Touba la waaye moom man na nitam te li mu war def ci ay nit mi ngi koy def moo tax daanaka métti wuñu waaye nag su fekkee élection yi jeex na tamit dañu gis ñun ci Touba danañ ko wax ndax bu Macky Sall wër woon ñàkk tey Touba Macky Sall dafa waroon a gagné mars Touba maa da ko waroon a gagné